سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله سبحان الله العظيم لا إله إلا الله hasbunallah wa ni ndaxte Senelec par man nii ñu may def présidence bi yàlla def ñu ñëw fii ñu waxoon ne rafet na ñu xam suñu organisation territoriale lu mu demee moo taxoon ñu invité ko waaye rate nga ouverture bi mais yaakaar naa ne fermeture bi ajjuma la bu soobee yàlla su la ko yàlla mën loo rek boo si teewee dinañu neex lool kon sëriñ bi dañuy sant yàlla bu ñu yàlla indiwaatee fii ñu ñëw fii nga xam ne xam nañ ne suñu kër la wan nañ ñu aussi ne suñu kër la moo tax lépp luñ fi def xeeb nañ ko moo tax it lépp buñ fi ñëw dañ fiy ñëw tànku taalibe mais aussi dañ fi ñëw ci ndigalu président de la république bu ñu wax ne Senelec bokk na ci société yoo xam ne utilité sociale la maanaam ñëpp a ko soxla moo tax mun nañu kilifa diine yi nga xam ne moom la ñoom la fi yàlla teg na ngeen leen accompagner ba seen mission nu mu gën a rafetee ngeen def si seen wàll loolu moo tax ñu ñëw fii si ñaari tànk tànk bu njëkk bi nag mooy am na engagement yi ñu jëloon xam naa ne dinaa jox léegi directeur région kàddu gi mu mu mu mu dugg mu leeral ko ñu xool ndax lu ñu waxoon def nañ ko wala bu sotteegul it ndax dina yegg balaay bës bi ndaxte engagement yi ñu jëloon nag pour bës bi la woon léegi beneen kii bi tamit mooy ñu déglu leen ndaxte njaboot gi yaatu na bëgg-bëgg yi yaatu na toujours dafay évoluer may préféré di defal nii sam bopp ñu jël engagement ma ñëw déglu xool ndax engagement yi ñu jëloon méngoo na ak lu ñu def kon daal sëriñ bi loolu moo doon tànk yi tey di ñaan nag xalifa bi yàlla na ko fi yàlla bàyyi bu yàgga yàgga yàgg yàlla may ko wër yàlla guddal fanam ba mu continuer di ñu tete ba mu continuer di ñu gunge loolu daal moo doon tànk yi tey ñu ngi sant bu baax a baax di gërëm di ñaan yàlla may ñu tamit ay at ñu def ko ay ati at ne di leen jëkk masawu coono ne fii ngeen jóge ak fii ngeen ñëw budul woon yëg ak cofeel kon du ngeen fi egsi tey ne kon ñi ngi nuyu ñépp ci seen tour ak seen sant ci turu sëriñ bi ak rakam, aki domam, aki domam, ak ñi mu jur ci walu mana ak ñi mu jur ci walu mana euh, ñu ngi leen di sant aussi bu baax na ngi leen di santit bu baaxa baax nak digënté daw ak ren ne digënté daw ak ren bu ngeen fi ñëwé bu ngeen fi ñu am lu ñu jambat ci bëgg-bëggu sëriñ bi ci bëgg-bëggu sëriñ bi mu jëm ci njabot gi mu jëm ci njabot gi ne lépp sotti waxul ni lépp sotti na de. waaye li ci ëpp li ci ëpp waaye li ci ëpp doole nag sotti na. xalifa yaay sët njëkk a toog door nooray ni toogaay bu beer boole nga dànk ak njaasa yaa matub xalifa سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله سبحان الله العظيم لا إله إلا الله حسبنا الله